waxtaan li nga xam ne li moom mooy euh, euh, euh, li nga xam ne li moom mooy moom la ñuy jànkonteel comme comme tolof tolof ñu fexe niñ koy mën a saafaraa te loolu si waxtaan rek la mën a lalu sànni xeer wala ngay toj ay kaar wala ngay toj oto jàmbur boo xam ne bi yoonam nekku si loolu fajul dara li nga xam ne lii moom mooy faj affaire bi mooy ñu fexe ba déggoo ci kàddu déggoo ci kàddu bi mooy toog waxtaan seet li nga xam ne li moom la war a def ngir euh, seen ñoom seen jàngu mën a mën a mën a dem kanam nga xam ne li ñu wut ci mooy euh, am seen lijaasa mën a bokk ci ñi nga xam ne ñi ñoo tekki seen réew am seen liggéey yor seen njaboot vraiment tekki comme comme ñëpp je crois que loolu loolu moo leen findi donc nag loolu loolu la ñu war a toppatoo li nga xam ne li nag daf leen di tardeel loolu amul benn njariñ te amul benn njariñ amul benn njariñ pour étudiants yi amul amul njariñ pour réew mi amul njariñ pour qui que ce soit donc je crois que li am importance mooy liggéey liggéey la ñuy di wut jàng et puis mu nekk dans de si euh, conditions yoo xam ne wax dëgg yàlla dama na nekk lépp moo mën a baax ndax du université rek moo am que li ñu war a toppatoo si réew mi am na yeneen fànn yoo xam ni war war nañ ko réglé santé baa ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye dafa nekk dafa nekk pàcc boo xam ne bi dafa bokk si réew mi alors liñ naan ku bokk si gétt gi nag naan si meew mi loolu moom mooy li am donc euh, vraiment donc euh, mu nekk tey loo xam ne lii vraiment wax dëgg yàlla am na solo étudiants yi waxal nañ ko seen bopp wax nañu li leen li leen neex wax nañu li leen naqari te kiñ ko waxal dégg na ko dégg ngeen itam li mu ci wax donc je crois que vraiment noonu la noonu la am réew di doxee wax dëgg yàlla.